إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عنه تردى أيها المسلمون معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأرسله شاهدا ومبشرا ونظيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكل عبد يسأل عنه في قبره هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة بعثه الله والأرض مملوءة بإبادة الأوثان وأخبار الكهان وسفك الدماء وقطيئة الأرحام فدعا إلى عبادة الله وحده صابرا على ما يلقاه من تكذيب وإعراض رفع الله ذكرا وأعلى شأنا معجزاته باهرة ودلائله ظاهرة منصور بالرعب مغفور ذنب أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة أول الناس يشفع يوم القيامة أكثر الأنبياء تبعا وأول من يقرأ باب الجنة كان عبدا لله شكورا يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه قرة أعيني في الصلاة يقوم لله مخلصا خاشعا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء رفيع الأدب مع خالقه لا يدعي لنفسه شيئا مما لا يملكه إلا الله قل لا أملك لنفسي نفسا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جمع من الأخلاق أتيبها ومن الآداب أزكاها لا تحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد بل كان أصدق الناس حديثا وأعدلهم وأوفاهم بالعهد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي جامي الله ñi sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di seede na moom dong mooy kii yoo ñu koy jaamu waaye di ko seedeel ne muhammad jaamam la yonent la bum yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangooroy ba baa bisi penc di taxaw gannaaw loolu yéen mbokk jullit yi ngal la waay ragal leen yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko ku ragal yàlla mucc nga àdduna ak alaxira képp ku dummóoyu ragal yàlla perte nga àdduna ak alaxira ay yéen jullit ñi xam leen ne xam sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam daa bokk ci ñetti ponk yi nga xam ne jullit amul droit réere ko te mooy xam boroomam xam yonentam xam diineem ci lu leer yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni woon jox ko diine dëgg jumi nara fare bépp diine ak lu mu naqari ka mu naqari du nangul keneen diine gannaaw ba mu ñëwee yàlla yónni na ko it muy aji seede ci kaw xeet bi doon koo xam ne nii day doon ku leen di bégal di leen leeralal la yàlla bëgg ak la ca nekk ci pay di leen xupp di leen leeralal la yàlla bañ ak la ca nekk ci mbugal mu daal di taxaw ci woote boobu gën jaa rafeti taxawaay jottali na la ko yàlla yunni woon laayeni biir xeet bi jihaat na ci yàlla dëgg-dëgg jihaat looloo tax ba yonent boobu amul kenn koo xam ne dana faatu ci xeetam lu dul ne buñ ko tabbalee ci biir bàmmeel laaj yoo ko fay xaar di ñetti laaj benn ba mooy lan nga xam ci sa yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ba mbokk julit lépp loo xam ne ñoo ngi koy jàng ci àdduna médecine la informatique la histoire la sunu aaday maam la lum mën a doon la gën a yey ci jaam bi mooy mu jàng kan mooy yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom lañ koy laaj ci biir bàmmeel mbokk yonent boobu xamal ne sunu borom yàlla tànn na ko mu nekk sangu yonent yi mboola seen di sangu doomu aadama yi àdduna ak alaxira baka yàlla di yónni fekk na suuf mi ngi lëndëm këriis ah dara nekk fi woon lu dul jaamu ay xërëm dara nekk fi woon lu dul màggal ay njabar ka amoon doole mooy kilifa tuur deret ak dogug mbokk yonent boobu ñëw woote jëme ci wéetal yàlla muñ ci woote boobu coono bu ne daj na ko ci ba baa yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali dooleel na ko ci ay kawtéef ay xarbaax yoo xam ne borom xel du ci sikk sàkka yàlla dimbali na ko ci ay noonam yàlla baal na ko ay bakkaaram mooy ki nga xam ne buñ demee yowmal qiyaama mooy jëkk a génn ci bàmmeelam mooy ki nga xam ne yowmal qiyaama mooy jëkk a ñaan rammu ñeel xeetam mooy ki nga xam ne yowmal qiyaama moo ëpp mbooloo ma nga xam ne ñoo ko topp suñu yàlla dajalee ci buntu aljanna moom dong mooy dem fëgg buntu àddina àjjana jëkk faa dugg mooy jaamu yàlla bi nga xam ne dundam yépp sant yàlla la ko defoon na bëccëgam ba rafete woon guddem ga moo ko gënoon a rafet daana taxaw guddi di naafila ba tànkam ya neew yi bay xar la gënoon a neex ci dund àddunaam mooy julli ci kanamu boroomam daana toroxlul borom bi daana nekk koo xam ne nii ku ko ragaloon la ragal goo xam ne jéggi na dayoo benn sahaaba bu mag mi ngi ni ñu koy wax abdullah ibn shukhayr nee na man day mas naa ñëw guddi kër yonent bi salallahu alayhi wa sallam maa ngi ko fekk ma nga taxaw di naafila waaye jooy yi muy jooy de dënnam ba ma ngay riir ba mel ne kaddir goo xam ne dañ koo baxal noonu la rafetaloon melokaanam ci digganteem ak boromam musta woote woo dara ci loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko moom bal da daan sax di jottali kaddug yàlla ga ko yàlla waxoon neel jaam yi man day moomu lu ma sama bopp njëriñ moomu lu ma sama bopp lor xanaa lu dul lu neex yàlla su doon kay lor ak njëriñ mi nga sama loxo mboolem yiwu àdduna danaa ko dajale ca benn lor du dal sama kaw kon lan laa nekk ma lu dul kuy xuppaate ak di bégalaate ñeel xeet boo xam ne dañoo gëm sunu borom feddali loolu itamit ci ay aayo yu bari waaye Moustapha noo mbokk ci li ñuy dégg sunu fan yii lii fan yi ñu tuddee fan yi gàmmo mooy lan ngay dégg te sunu maam yi dañ koo dégg ci ñoo xam ne dañ koo bindoon ci seeni téere ñu jàpp ne luñ bind ci téere rek lu wér la te fekk ne yéen ñi tombeeg presse mooy journaliste da ngeen xam ne du lépp lu ñu bind rek lu wér la bokk na loo xam ne bind nañ ko ci yenn téere mooy yàlla lam jëkk a bind mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba la xaat leer googu daa di cay jël bind li nga xam ne mooy arash ak kursi yi xaat leer googu bind ci la nga xam ne mooy allahu wal qalam fa yàlla bind dogal yëpp xaat leer googu bind ci lépp luy leer ci kaw asamaan ak suuf ci ay jante ki weer gannaaw ba xaat leer googu bind ci yeneen doomu aadama yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen mbokk loolu dañ koy wax waaye wallahi amul sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam la nga xamee ni nii moom la ko yàlla bindee nekkul da koo bind ci leer malaaka yi la yàlla bind ci leer jinne yi yàlla bind leen ci sawara moom yàlla bind ko ci ban nam bind woon baayam ba aadama alayhi salaam nee na man maay gën ci doomi aadama yi looloo tax sunu borom waxloo ko ni qul innama ana basharum mislukum nee leen man day nit laa comme yéen ni ma yàlla binde la leen binde li leen di gàllankoor ma may gàllankoor danaay xiif danaay feebar maa ngi dund te dinaa masa de nit rek laa comme yéen li ma wuutale ak yéen daal mooy yàlla xamal na ma nuñ koy jaamoo ca ma yuuxaa ilayya lii mbokk la nit war a gëm ci sunu yonente alayhi salaatu wasalaam bari na sunu maam yi bëgg gën ko bëggoon taxoon nañu dem ba jéggi dayo te benn jéggi dayo baaxul ak lum mën a doon bokk na ay woy yi ngeen di dégg wa min juudi wa min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma allawhi wal qalami da ngay gis benn waay bu koy way naan ko yonent yow la ci sag mbaax ca la adduna jóge ca la alaxira jóge gannaaw ba ci sa xam-xam ca la xam-xamu lawxil mahfuuz ak la ci yàlla bind lépp sa xam-xam la ko jëlee mbokk lii da ngay gis ne ak a safaanu ak alquran ak a safaanu ak doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jaamu bi yàlla la bu bokk ci ay jaamam wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul xam leen ne muhammad du dara lu dul yonent ay yonent jaaroon nañ fiy jiitu ko afa in maata aw qutil inqalabtum ala aqaabikum faman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allahi shay falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin manax da ngeen jàpp ne muhammad nekk na leneen lu dul yonent yonent kese la ay yonent jiitu woon nañ ko fi képp ndax da ngeen jàpp léegi bu deeyee da ngeen di wëlbati ku dellu gannaaw ku dellu gannaaw daal boppam rek lay lor yàlla subhanahu wa taala mooy ku wamle donte ne ku ko sant dana la fay tontu bu mel noonu la sunu borom tontu woon nasaraan yi bañ demee ba ne isa ibnu maryam doomi yàlla la sunu borom subhanahu wa taala daa di ne isa day moog yaayam xanaa xamuñu woon ne kaana yaakulaani taam ñoom dañ daan lekk ñam kon ay nit rek lañu bind naa ko na ma binde woon aadama ngalawaay xam leen ne mbokk loolu mooy la gën a màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee dañ koo bëgg a tagg nañu xam ne tagg bi gën a màgg ci moom mooy abdullahi wa rasulu jaamu yàlla la yonent yàlla la te it moo gën ci yonent yàlla yi mbokk tagg munte passé fii leneen loo bëgg a passé rek yaa ngi dugg ci domaine yàlla subhanahu wa taala te bu la yonent boobu déggoon mooy jëkk a denc yow sallallahu alayhi wa sallam moom moo dajale jukko ya la ca gën a sell ci jukko moo ko dajale teggin yu rafet yi la ca gën a sell moo ko dajale mooy ki nga xam ne ku dëggu woon la ba waa Makka avant ko yàlla subhanahu wa taala di yónni ñoom ñoo ko tudde woon muhammadul amin ku fonkoon ay digam la lañ ko daan bañ bañ bañ sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne moom la ñu wóolu woon moom lañ daan dénkaane lépp lu ñuy dénkaane ba keroog bi nga xamee ne mi ngi def hijra sax dafa bàyyi ali ibn abi talib radiallahu anhu mu gardeel ko dénkaane ñooñu nga xam ne dañ koo noonoo woon moom la sunu borom tagg daa dina dikkal na leen yonente boo xam ne ci seen bopp la bokk mooy ki nga xam ne ku am yërmande la ci xeet bi ku am ñeewante la ci xeet bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xamee ne nii da nga koo bëgg ca bëgg googu nekk loo xam ne lu war la xamal ne doomu aadama bi la nga gën a képp koo bëgg da nga jéem a mel ne moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam su dee da nga koo bëgg a roy xoolal nan la meloon ak boroomam ku ragaloon yàlla la ku moytu woon bàkkaar la ca ànd ak loolu lépp daana wax ne man day bus bu ne danaa tuub jëm ci yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon mi ngi noonu su ko defee kon képp ku ko bëgg a roy xamal ne yonent bi mi ngi noonu mooy ki nga xam ne digganteem ak boroomam musul fayu ñeel bakkanam waaye nag yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku masaan mën a dox diggante meram bu dee dañoo xotti war ma yàlla looloo tax daana wax wallahi fatima sax bu sàccoon damay dagg loxoom nii la meloon ak boromam subhanahu wa taala waaye gannaaw ba moog njabootam yonent bi alayhi salaam daana wax xam leen ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam nam ko waxee la ko jëfe woon dafa jege woon ay soxnaam daan leen dimbali ci kër gi daana ànd ak armée islamique nekk ci jihad waaye teewul mu ne armée bi dem leen ñu dem mun a Aïcha kaa ñu course maag yow kan moo jëkk a yegg ci armée bi ca moo nekkoon personnalité bi gën a màgg ci kaw suuf mooy ki nga xam ne ku bëggoon ay xale la daana leen romb ci mbedd ñëw nuyu leen raay seen bopp yi sahabatul kiram dañuy xam ana ban xale la yonent bi laal ndax parfum ba nga xam ne moom la daan nekkal mooy ki nga xam ne soppal na ay doomam yu jigéen ak arab yi nañ ko bañe woon heure bu Fatima masaan ñëw ci kër gi da daan jóg taxaw gatandu ko noonu it la fonk woon kóllëre Xadija moom di ko àndal ci néegu sëy gis nañu ne teel na faatu fekk demagul Madina waaye musu koo fàtte heure boo xamee ne daan rey ab gàtt daana wax yóbbul leen ci xaritu xadija yi ba suñu ay aysa daana wax ne soxna yenent bi ki ma ci gën a fiire may xadija te musul sax ànd ak xadija ci buumuk sëy ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la meloon ak ak soxnaam ya waaye sahabatul kiram yenent bi alayhi salaam amul woon deux salons yenent bi alayhi salaam amul woon turbine boo xam ne borom katkat yaag borom compte bancaire yaa fay toog amul woon géttu bay bal ñépp la yemele woon la gën a yéeme sax mooy ñëkk a gënoon a jege mooy masaatiine yi buñ masaan toog moom ku nekk ci ñoom day jàpp ne man la yonent bi gën a fonk heure bu daan ànd ak ñoom ci liggéey day futteeku ànd ak ñoom ci liggéey boobu su masaan ñëw ci mbooloo fekk ñu toog kenn du ko xajal fa mbooloom yem rek lay toog ba ab doxandéem heure bu masaan ñëw danaan ana kan mooy yonent yàlla ñu ne ko kee la noonu la meloon sallallahu alayhi wa sallam ci muñam ga yàlla subhanahu wa taala nattu na ko ay jafe-jafeem ci biiru yaayam la ko fekk avant muy judd la baayam faatu sunu borom subhanahu wa taala natt ko itamit mu daal di jóg ba mu duggee ci néegu sëy doomam yépp yàlla faat leen daanaka ci kanamam la doomam yépp faatoo ba mu des Fatima waa Màkka ya ko yàlla yónni woon dóor nañu ko xas nañu ko génne nañ ko dëkk ba ba mu demee topp nañ ko xeex nañ ak ñoom ca Uhud damm nañ bañam ba tuur nañ deretam ba wër nañ ko ca ahzab gannaaw ba yahud yu bon yi jàpp nañ ko njabar nañu ko en posene nañ ko ba posen boobu gannaaw yàlla bokk na la ko yóbbu àllaaxira ba mu demee ca feebaram bu mujj ba mu ne lekk ba ma lekkoon ca xaybar ca yahud ba ko doon jéem a posene nee na mi ngi des sama put gi ba léegi waaye noonu mënoon a muñu it noonu la jàmbaare woon du ne daa muñoon ci ragal bal da koo boole woon njàmbaar sunu sahaba bu mag ba di ali ibn abi talib nga xam ne kuy wax njàmbaar sa xel day dem ci ali daana wax na buñ ma sàn daje ci guerre léeg-léeg guerre bi daana tàng ba ñun ñépp ci gannaaw yonent bi la ñuy nekk mooy ki gën a jege noonu yi waaye it noonu la nekk woon sallallahu alayhi wa sallam doon aji maandu ci léppam wax naa lañ sànq ne newoon na fatima sax bu sàccoon danaa dégg loxoom waaye xatta biir këram keroog ba nga xamee ne feebar na ñu koy jël di dugal nekki nekki bokk na lu mu daan wax fan lay aaye suba ba baa soxna yi ñoo na ko na nga yem ci nekk Aïcha yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nii la nekke woon ak tabeem ga ak mbaaxam nga ba lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa taala joxoon na ko ko da koy daal di jël jox jaami yàlla yi taxoon na ba kër ga sax léeg-léeg daanañ toog lu mat weer cin du fa takk bal daanañ toog ba dara du fa am yéen a ngi fàttaliku benn gan bu ko dikkaloon ci guddi mu daal di yónnee ci kër soxna yépp ku nekk mu laaj ko ndax amul loo fi dese lu ñu mën a reere ñoom ñépp na ko yow mi yàlla yónni denc ma dara lu dul am ndox ba baa kenn ci waa ansaar moo ko fat histoire boobu yàgg ngeen koo dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon ci yërmandeem ba benn arab ñëw na ci jàkka ji ba mu ñëwee xamul lu xew tekki tubayam rek commencé saw ci biir jàkka ji sahaaba yépp yuuxoondoo ko yonent bi ne leen bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu sawa saw ba pare mu ñëw lëngu ko nànk ne ko gis ne fii néegu yàlla la dañ koo taxawal ngir bàkk yàlla tagg yàlla mu daal di yëkkati ay loxoom di kaw kaw ba daa dina yàlla yàlla nag ma yërëm mag muhammad te bu ci boole kenn ndax ñii kat xaw nañ maa yóbbu laaxira noonu it la ñu gis ne sallallahu alayhi wa sallam waa màkk yooyu nga xam ne lu ne teg nañ ko ko keroog ba mu ubbee màkk gañe leen ñoom ñépp ñu taxaw ci kanamam moo laaj leen waa léegi nag lu ngeen yaakaar moom lay def ak yéen ñu ne ko xamuñu ci yow lu dul mbaax ak yërmande mu ne dem leen gorel naa leen sallallahu alayhi wa sallam noonu la bëree woon kersa làmmiñam wa da ko daan sàmm daawu ca wax lu dul loo xam ne lu baax lu rafet la daawu ca wax lu dul loo xam ne zikrullah la ay bëtam noonu la ko sàmme woon daawul jàkkaarloog ñin mukk xool ko en direct amul kenn ku masaan def lu bon mu woo ko wax ko ko daraan dem ca jàkka ja ne lan moo dal ay nit ba ñuy wax nangam ki nangam ki nangam su ma saan mer kenn du ko xam lu dul ci kanamam su ma saan kontaan daawul nekk di ree di xàqtaay dafay nekk rek di muuñ sallallahu alayhi wa sallam ba sahaaba yi dañ daan wax yonent bi de moo ëpp kersa yonent bi moo ëpp kersa benn jigéen boo xam ne ab siit la ñu dogal ko ci néegu sëyam kersa ga muy àndal yonent bi moo ko ëppoon kersa sallallahu alayhi wa sallam mbokk ki mooy ki yàlla tagg mooy borom taar bu rafet bi fa borom taar bu rafet ba borom yére yu sell ya borom parfum bu neex ba ka sopp soppoon la nga xam ne mooy soccu soppoon lépp lu baax lu neex lu xeeñ bañoon lépp lu ban lu ñaaw lu xasaw moom la sunu borom taggoon na ko wa innaka la ala xuliqin azim yow yaay borom jukko yi rafet yi yàlla na yàlla tàggat ñu ci jukkoom tàggat ñu ci ngëmam tàggat ñu ci ay tegginam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم عباد الله فكل ما يصدر من المسلم يا عباد الله يجب أن يوزن بهذا المعيار الرباني القالب ألا وهو طاعة رسول الله فيما جاء به واتباعه فيما أمر به ونهى عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أي mbokk julit yi ñi ngi yeesal sant sunu borom mi nga xam ne xéewala munuñu koo lim bokk na ba ca gën a màgg yonent boobu mu ñu tànnal def ko muy sunu royukaay def ko muy sunu soppe mu ñuy teete ci yoonu yàlla yonent boobu nga xam ne sunu borom ne woon na lépp lum leen indil jël leen ko waaye lépp lum leen tere bàyyi leen ko moo ñu waxoon ne kenn ci yéen du mën a gëm lu dul maa koy gënal ay doomam maa koy gënal bakkanam maa koy gënal waajuram gënal ko képp ko yàlla bind kon yonent boobu dañ koo war a bëgg dañ koo war a sopp waaye naka lañ koy bëggee foofee la mbir mi amee naka la ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofee la mbir bi nekk sunu borom yàlla nag arbitre na ci daa di ne xam leen ne su nee da ngeen a bëgg yàlla bëgg yonent yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen bëgg yonent yàlla lañ koy mandargaale mooy ñu daal di koy topp ci ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu da ngay gis ne benn nattuwaay la ci lépp loo xam ne jullit yaa ngi koy def ngan la waay peese ko ci la nga xam ne mooy la yàlla waxoon lum indi def def leen lum tere bàyyi leen loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaam daanaka ajjuma bu nekk daana taxaw ci kanamu nit ñi ne leen xam leen ne day la gën moom mooy téereb yàlla bi ne gën a rafet nañ koy jaamoo mooy sama sunna ca bépp biddaa loolu ak réer la daana waxit ku jëf benn jëf ci du maa ko digle yàlla dana ko ko delloo lii daf ñuy leeral mbokk julit sos ci diine yàlla ji day ak lu sa yéene sell sell xamal ne du tee yàlla subhanahu wa taala dana la ko delloo loolu nag teewul sunu yonent alayhi salatu wasalaam ba mu fi jógee la texoon mu koy wattulu nit ñi xamoon ne na bu fi jógee dana am anas ibnu malik nee na amul benn at lu dul nit ñi daañ sos benn bidaa daa di rey la nga xam ne mooy benn sunna yonent bi mbokk sallallahu alayhi wa sallam xam leen ne dund na fi ba dundam jeex te nit ñi xamuñu luy gàmmo yonent bi musta gàmmo sahabatul kiram dund nañ ci gannaawam lu jege téeméeri at yoo xam ne ñi ngi dund ba seen maas jeex musuñoo xam luy gàmmo génération ba topp ca sahaaba ya di ñoom imaamu malikin ak ñoom shafii nekk nañ ba seen génération jeex xamuñu luy gàmmo ba baa benn mbooloo boo xam ne dañu ñëwoon nekkoon ci iraq doon ay chia ñu tudde leen ay fatimiyuun moom la tubaab yi di wax les fatimides nga xam ne ay chia la ñu woon ñoom buur benn buur ca ñoom ci quatrième siècle gannaaw bi fi yonent bi jógee la créé la nga xam ne mooy gàmmo daal di ciy woote ay poète ñu commencé di ko màggal comme ni ñuy màggale Isa ibn Maryam loolee ba mu amee boroom xam-xam ye bañoon nañ ko boroom xam-xam ye bañoon nañ ko yenn buur yu bari yi ñëw gannaawam sax folli nañ loolu teggi gàmm googu bokkoon na ci ku ñu wax salahuddin ayub mi nga xamee ne tubaab yi ñoo ko gën a xam sax julit ñi ku xeexoon gàmm la ba génn ko ci jamonoon gannaaw bu ñu demaat ba mu dellu siwaat mbokk julit sunu maam yu bari yàlla na yàlla subhanahu wa taala fay leen mooy ñoom lu bari ci saar fekkewuñ ko ca bëggoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola tax ñu bari daal di commencé créer ay gàmmo waaye gàmm googu bokk na li nga xam ne lu ñu gëm la mooy maam yooyu nga xam ne ñoo ko dekkalaatoon suñ ñëwoon tey daañ ko suulaat ndax daañu xam ne ñoom te mënu koo passé mbokk yonent bi la mu indi woon rek mooy la doy leneen lu dul loola da ngay xam ne day yàq tubaab nee na trop c'est trop lépp loo xam ne dañ koo teg ci gannaaw la mat rek loolee da ngay gis ne day yàq loolu moo tax ba tey jii bokk na lu ñu gis heure boo xamee ni nii juyoo gi ñu juyoo ci mawlud googu xamal ne la ca jëkk mooy mawlud lan la mooy toppandoo nasaraan yi ca màggal juddu isa ñoom ñoo jëkk a màggal juddu isa gaa yi mawlud lan la sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam day moo waxoon julit ñaari iit la am iidu tabaski iidu korité demal ci téere fiq yépp daañ la jàngal nii la ñuy defee iidu korité nii la ñuy defee iidu tabaski gaa yi na ngeen génne benn téere booy jàngale nii la ñu war a mawluude abadan amul yonente bi xamu ko maalik xamu ko waaye tey dem nañ ba mawlud googu ñu ne moo gën a màgg laylatul qadr bi yonent bi bi sunu borom ne xayrun min alfi shahr ñu ne mawlud moo gën a màgg laylatul qadr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga neel boobu ba pare nëbb ko sahaaba ya ba moom musta musta mawlud loolee mbokk nañ ci bàyyi xel benn waay mu ne waaw yonent bi kay mawlut na ñu ne ko nu mu ko defe woon mu ne bisu altine doon na woor ne ci laa juddu ñu ne kon kay discussion bi jeex na léegi xulo bi jeex na neem yonent bi mawlut na kay ca yàlla nee na nañ ko topp kaay leen ñi mawlut na yonent bi doon mawlutee nañ wekki baas yi nañ delloo nag yi nañu nëbb cere yi yonent bi nee na dafa wooroon gaay bi bu si altine jotee ñun ñëpp nañu woor ngir màggal juddug yonent bi salallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yéen ñëpp seetlu leen ban différence moo nekk ci xëy suba yendoo koor ak la nga xam ne moo xew ci mawlud yi rey téeméeri nag bal dégg naa benn mawlud fii ci Sénégal kilifa ga ko jiite juróomi téeméeri nag la commandé moom la ñu war a rey ñu war a yendoo lekk war a yendoo naan xoolal kooku ak différence koor ga nga xam ne moom la woor loolee góor gi ngan la waay góorgóorlu leen bàyyi leen ci xel ca it ngeen bàyyi xel ne bisu mawlud boobu mi ngi tombeeg fukki fan ak ñaar ca li nga xam ne mooy weeru gàmm dellu leen ci ñooñu ñuy gàmm moolu seen amul kenn ku ci mën a waat ne bisu mawlud ca la yonent bi juddu bal da ngay gis ñoo xam ne dañuy woote bu weer yu teroo ñuy daje di sikkar di sikkar ba baa bisu fukk ak ñaar boo demee ñu ne waaw am na ñu ne premier la judd ñii ne deux ñii ne trois ba baa ñu yegg si fukki fan ak ñaar kon yonent bi kañ la judd wuute gu rëy rëy rëy moo ca nekk bal at bi mu juddoo sax wuute gu rëy rëy moo ca nekk ñii nee nañ 60 ans la am ñii ne 63 ans la am ñii wax leneen ñii wax leneen waaye li nga xam ne historien yéefér yeeg jullit yi wuute wuñ ci mooy bisu gàmm boobu ci la yonent bi alayhi salaam faatu woon donc bu doon ñii gàmm logique nañ ak ñoom seen bopp dañoo waroon a gàmm ba minuit ñu ne gaa yi léegi nag comme guddi gi xaaj na yonent bi ci la judd woon ca la faatu kaay leen nag ñu jooy ba baa fajar di jot loolu la ñu waroon a def ndax yonent bi ci la faatu maadaama màggal nga judd gi war ngaa màggal faatu gi sahabatul kiram day amul lu leen gënoon a metti faatu gi yonent bi salallahu alayhi wa sallam waaye ndax ñoom bis ba ñëw na ñu ne nañ rey nag ngir màggal faatug yonent bi wala wàccee kaamil ngir màggal faatug yonent bi laa wallahi sahaaba yi nañ maandoo woon ci judd ga noonu lañ maandoo ca faatu ga ay yow mbokk julit ay waay yi tee ngaa bañ a xeeb màggal gi sunu yonent mag gi sunu borom màggal yonent bi tee ngaa bañ a xeeb gàmm gi yàlla gàmmal yonent bi gaa yi yonent bi méritéwul benn jour yonent bi dafa méritoo année bi yépp la méritoo looloo tax demal Jakarta ba Washington demal Chine ba Canada foo si dem yaa ngi fekk tey un milliard cinq cent millions de musulmans di yëkkati seen noddu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yéen a ngi dégg ñu ngi yëkkati ci seen liqaam ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amul benn jurit buy taaya lu dul dana julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam loolu mbokk da ngay gis ne bus bu ne mi ngi am lii mooy màggal gi lii mooy gàmm gi gën a sax gannaaw ba na nga koy màggale xamal ne bus bu ne la mooy gëmal lam gëmoon jéemal a jukkoo ay jukkoom jéemal a tegginoo ay tegginam gannaaw ba sunu borom am na gàmm goo xam ne moo ko jëkk a def sant ko ay malaakaam santuñu ko ñun mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàllaa ki malaakaam ñi ngi julli ci yonente bi ey yéen jullit ñi julli leen ci moom ca ñaanal ko ak mujj sahaaba yi ñëw ci yonente bi alayhi salaam ne ko waaw nu ñuy jullee ci yow aka neexoon yonent bi ne da ngeen di tànt ngeen rey nag toggi cere nu ñuy jullee ci yow mu ne da ngeen di wax ne allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mbokk lii mooy salaat bi nga xam ne booy moo gën ci ni ñuy jullee ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wallahi buñ dajale woon ñu nekk ci gàmm gi ñu laaj leen ñu ëpp ci ñoom ndax mën nañu lii da ngay gis na mënuñu ko ca nga jàngoon salaatu boobu di ko def bus bu nekk moo gën nga tàntoon junni tant rey téeméeri nag lan moo lay jural ci loolu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day mi ngi tasaare ay malaaka ci kaw suuf xam ngeen luy seen liggéeyee mooy déglu kan mooy julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam képp ku julli ci yonente bi alayhi salaam ñu daal di ko koy jottali ne ko day fàccaam ca sénégal mi ngi julli ci yow yonente bi alayhi salaam yàlla delee ko ruuxam mu ñaan yàlla yàlla daal di julli ci yow looloo tax daana wax ne laa taj'alu qabri iidan wa sallu alayya fa inna salaatukum tablughuni haysuma kuntum bu leen jóg di ñëw sama bàmmeel jaru ko fu ngeen mën a nekk julli leen ci man waaw mbokk jullit bu dee ne gàmmo baax na pourquoi nga ne waa Niger ak waa Canada ak waa Mali ñëpp na ñëw gàmmo si fii xanaa suuf bi du suufas yàlla xanaa bu ñuy julli juma duñ ko julee seen i dëkk xanaa bu ñuy julli it duñ ko julee seen i dëkk kon da ngay gis na màggalu ñu yonent bi seen bopp la ñuy màggal loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax moo tax yonent bi ne jarul ngeen di takk di ñëw sama bàmmeel fu ngeen mën a nekk julli leen ci man yàlla dana ma ko delloo gannaaw ba yow mbokk julit heure boo jullee ci yonent bi benn yoon yàlla dana julli ci yow fukki yoon kon saxal leen di gàmmo fu ngeen mën a toll saxal leen di gàmmo ba baa ngeen di dajeeg seen boroom gàmmo goo xam ne benn dërëm di ngeen ko ci dépensé ca fu ngeen mën a toll dee leen wax julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ca gën a gàtt mooy allahuma salli ala muhammadin wa sallim am na loo xam ne miin ngeen ko yéen ñëpp sénégalais yi mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah salallahu alayhi wa sallam nga la waay di leen ko baril di wax ca xam ne loolu mooy la ñu sunu borom dig loolu moo ñuy texal adduna ak alaxira allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fi العالمين إنك حميد مجيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين